foofu li ma ciy wax mooy kenn yéenewul kenn dem kaso donc Cheikh Omar Diagne maa ngi ñaan yàlla mu teel a génn kaso boobu dellu ci ay soxlaam parce que ay gëstoom ak euh, yu bari yoo xam ni euh, mën na ko dimbalee réew mi ak diine ji mi ngi ci moom ku gis ay gëstoom gis ay position xam ne mi ngi ci moom kon kii senegal li mu ko gën a soxla mooy euh, mu am liberté di mën a apporter Euh, li nga xam ni war na ko mën a euh, apporter kon euh, foofu laa ci yam léegi nag comme ni ma la ko waxee légaliste la sama position nekkul ku am problème ak justice rek ñu ne dañ la bëgg a jaay doole dañ la tooñ parce que loolu du ma ko nangul ni Omar Diagne ñi man sama bopp ni keneen xam nga man nee naa la bëgg nañ ma yóbbu man damaa jël sama avocat taxaw di xeex kon tamit bëgguma Sénégal ñu tàmm Euh, wax ne waaw justice amul kuñ jàpp rek dañ ko bëgg a tooñ et cetera donc au delà de Omar loolu loolu lenn la ci kon nañ nañ jàppale ay avocat am jàppale procédures yi euh, def ay conférence de et tout pour nguur gi xam ne euh, dossier bi dafa war a nekk benn dossier bu judiciaire loolu tam dama koy nangu Djibril War dama koy respecter en tant que citoyen am na droit porté plainte ku ko neex muy Omar Diagne muy Imam Kanté kooku tamit dem défendre loolu laa gis ne c'est les du jeu de la loi et de la citoyenneté parce que loolu su amatul rek ci kaw lañ jëm il faut nit ñi comprendre loolu du affaire u ragal wala dara loolu su amatul réew dootul am gis ngeen réew yu mu amul gis nga ni muy mel kon loolu laa loolu laa gis léegi ma jeexal ci peut-être fekkee am ngeen beneen question ma jeexal ci euh, professeur Oumar Diagne ma wax ci benn peut-être c'est l'occasion ma waxaale ko ci mooy comme ni ma ko waxee sama style bokkul ak forcément style am donc moom du ma ko wax mu waxee man ni may waxee man tam moom du ma wax naa waxee ni muy waxee euh, ay gëstoom mën na bañ a bokk ak samay gëstu ni muy interprété yi muy gis mën na bañ a bokk ak sama interprétation kon dama koy respecté euh, mu respecté ma léeg-léeg du ma ànd ci moom euh, ni muy interprété ak ni mu tëralee discours am c'est normal moom tam mën na gis ne man sama discours wala position yi may jël euh, nekkul li war a régler problème bi donc loolu liberté d'expression moo joxe loolu